yaa booy nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. naaw ba ñu la jaalee li nga xamante ne loolu la ñu bokk ñu bëggoon nga joxe ay quelques témoignages rek ci sa doom ji nga xam ne ñàkk na nga ko muy Kiné. waaw muy Kiné Gaye may sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed xam nañ ak sama doom ji fii te ma fu ne yërëm ma yiir ma bëgg dara lu ma naqare ba mu juddoo ba tey tey jii laa am ci moom lu ma naqare ko ñàkkee. koo sama doom ji yaru na am na ay teggin mu sabax dara lu ñaaw ci gémmiñam xanaa tey am diine fonk ma fonk papaam ñi ci kër gi ñëpp ay mbokkam lañu defante ay moroom ak ñoom xale yi jooy nañu ba mënatuñoo jooy guddig biig man kay li may ñaan ñi def jëf ji yàlla leen yàlla weer yàlla leen yàlla weer sama nag naa ko lii sax mënu ma koo wax fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jógee ñàkk naa ñàkk naa ku ma dudul al naa sama xarit ñàkk sama àndandoo ñàkk ku yedd dama delloo ci yàlla may sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana fil dawsiya yàlla na rëccu lu fi doon def ci barke yonent bi man de man de xaw ma ci dara ndaxte dama dem rek may woo xale yi bi ñu nekkee ca place ba ñu daal di coupé seeni téléphone ku ma woo boo ma nee alors rek bu ma la wuyoo nga daal ni toogal maa ngi ñëw man leen waa yéen wax leen ma le xew ñu ne ma ah nungal rek noo ngi ñëw man daal ñëw toog fii ci biir kër gi ma toogee léegi nag ma gis nit ñi rek di daw di ñëw di àkk buntu kër bi di jooy ma toog ba yàgg ma ni waaw nit ki nan lay accidenté ñu kii ko ñu agressé ko ñuy jooy lu ñuy jooy doo xool ba xam ndax dañ ko yóbbu hôpital wala déet xanaa loolu moo gën ndagate booba dafa de ñu di ko nëbb ba léegi ñun xamuñu ci dara ba léegi xamaguñ ci dara Euh, information yi ñu jot ñu ne boobu bi muy dem dafa yóbbaale li nga xamante ni moo di tout tànk maanaam ëmb boo xam ne toll na si juróomi weer ndax loolu moo nekkoon taawam wala. waaw taawam la war a nekk ndaxte man sax yàlla xam na ne nii gis naa rek muy feebar nii wante taxul sax ma bàyyi ci xel yàlla xam na ko ak yontu yàlla Mohamed léegi rek laa ko dégg ci nit ñi moom naqari ma naqari ma ndax su ma sama yéene yàgg ci moom. sama yéene yegul ci moom mu dem bàyyi ma maa ngi koy ñaanal fa ma jëm loolu tey rek laa ko dégg ñu koy wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf